bu suuse ba xam nga daa ngay réew nga naan sa ñaari bët sim muy daw ku fi takk sim ñu takkal la lam <laughs> Hi guys, hi everyone. You know the vibes. Me, I'm very, very, very fine. I hope you are very, very, very fine. So guys, man maa ngi toog di laak anglais mel ni ko amul bëri na famille. Nu may fot rek. Fay ma de. wax naa leen man sama participation moom fay moom bu dee ñëpp dañuy fay moom xam naa dina des neuf cent waaye fay ma de fay xalaatu ma ko. guys today we do the video we have more buzz on TikTok maanaam way bi gën a dox ci TikTok bi moom la ñuy def vidéo tey mu naan gulu gulu gulu gulu. naan sa vaut takk sa sim muy daw. <laughs> sama gars balaa vidéo di commencer merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen si war a sama promo code 21F la saa bu di nga am bonus 1 million lien bi naa ko def si commentaire yi. let's go sama gars yi ñu seetaan. way wi gën a dox ci TikTok tay way wi gën a dox. way wi gën a dox. refrain bi danaan. danaan gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Hmm? naan sa vaut di. takk sa sim muy daw. <laughs> Ada Boy mooy way way bi quoi Ada Boy Ada Boy gulu gulu moo ko way ñu seetaan Ada Boy ñu xool lan la way si euh, son bi ak clip bi lan la si lancé ñu xool ak kan mooy Rougui Cissé Rougui Cissé foo jógee du la wax foo jógee way wi day neex boo ko dégloo mu dugg si xol woy bi day neex aada yaay ki ñuy bégal kon aada moo ñuy bégal ah let's go ñu wuyu leenoo fantiye yéena tax may xëy di daan doole aada booy nee na wuyu leen ngeen wuyu ko yéen fans yi yéen ay fansam yéen a tax muy daan doole maanaam yéen a tax muy daan doole daal loolu la bëgg a wax maanaam parcelle ak lu wër yëpp ñu ngi koy dooleel euh, moom aada aada boy ngi doomi Grand Yoff ñëw di leen dëggal maanaam loolu la loolu lay waxaat quoi maanaam aada ngi nii moom moo leen di doomi Grand Yoff moom moo leen di wayal daal loolu la bëgg wax na may waye so good aara ñu xool ni aara xool ni la drogue tue aw dafa bind ci clip bi mu bind si la drogue tue maanaam gars yi ñoo ko doon kaas que ni de euh, gulu gulu gulu kenn war ko challenge wala dara mu génne clip bi taf si ay affaire am bind si la drogue tue maanaam day sensibiliser aw c'est bon c'est bon tënk ada, tënk ada, tënk ada. ni la la bëgg gondi duma ma nan a naan vëdi aada gondi duma ma nan that's good that's good that's good that's good that's good bëgg gondi duma ma nan a naan vëdi ba pare nga way sa vëdi sa sim muy daw day sensibiliser na may waye teew na leen fa may solo. nan la war a solo. ñaar ñetti yoon ci song mu naan nu may soyoo neex na leen nu may wayee neex na leen. l'alcool efface une partie de ta vie. alcool day effacer une partie de ta vie maanaam alcool moom baaxul taf nañ ko ci clip bi bàyyi leen alcool bi ngeen di naan bàyyi leen alcool bi waaw baax na ñu continuer yéena ma doole loolu neex na waay aada aada way non booy bi dafa dafa mun way bind fii ku fi taq sim ñu takkal la lam <laughs> aaro nee na kuy takk si mu taxala lam te aaro aaro da ngaa trahir mafia yéen laay waxal euh, mafia mafia tostasar bi ak mafia kii bi bandi bi aaro da leen wor ci clip bi soo leen seetaane lii si ngeen xam ko aaro daf leen wor ci clip bi waaw moom moo bind ci kilim bi ku fi takk sim ñu takkala lam waaye loolu dëgg la ku fi takk sim bu takkala lam yow yaa ngi woyal booy booy kontaan loolu nga ñëw bind ci takk sim ñu takalalam. merci beaucoup pour sensibilisation sim baaxul baa sim ñu continuer eh! xam nga da ngay réew eh. nga naan sa nyari fol sim muy daw <laughs> est-ce que gis bosu se ba yew xam nga da ngay réew est-ce que gis ngeen rëg dox rëg rugi da danan vud bayak ni susah bayak kam ga da ga ire ga nan sanyare ko ta sasi moy daw li dama xéré ñu xor rugi fum juga. yow rugi fo jugé Wih, sama Ndayu. Rugi Sisa, semua Ndayu. Wah, Ata, kamu Rugi Sisa, deg-deg wala nyom, nyom, dem, dem, actrice. indil ko Rougui Cissé soo ma reyul yàlla naa dee. golo golo golo golo golo golo golo. nga naan sa bër takk sa biir booy daw. takk sa oh, dafa neex son bi dafa neex mais Rougui Cissé soo ma reyul yàlla naa dee. <laughs> mais gars yi neex nañ nag sérieusement mais Rougui Cissé Rougui Cissé j'espère que seetaan nga sa seetaan naat nga sa bopp Rougui Cissé bàyyil vëdi vëdi baaxul Rougui loo wuti woon Senzala ñu wax nga naan gulu gulu gulu gulu clip bi dafa naan clip bi so so au top di nu ma si woon bañ a def réaction génne na kii paa bee toog ci émission bi ne woy bi gën a dox mooy nga naan sa vodi après mu taxaw na lan mooy naan vodi naan vodi ba mandi takk sa sim intelligent nan la si anglais small non small small home côté yooyu la daal mais nice de ba pare sensibiliser nañ si clip bi bind naa affaire am son bi na c'était ça le bi sama gars yi ma illal li xaa ma vendredi di ñëw voilà ba ci semaine bi su ma jot rek ma am jot laa am am very very busy for do video cause am go sometime to make money to work waaw pray for use nañ ñaan suñ bopp yàlla baax na si yow sama yi nga naan sa body takk sa sëf